tamit jaajëfal nañ ko bu baax mel na ni tamit euh, kër gi am na keneen koo xam ne bésu juddoom dafa dellu si je pense muy wuyu ci turu Pa Ousmane moom tamit ñu koy souhaiter joyeux anniversaire di ko mm-hmm. happy birthday to you di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér gi yaram yàlla bàyyi ko fi yàlla gën koo fi saxal te it ubbil ko buntu xéwal yi yokk ay wërsëgam bu baax a baax te mu ñëwee it mu toog te jikko Pa Ousmane ñu ngi lay ñaanal yàlla bu baax a baax a baax a baax li nga bëgg yaa xam yàlla la ko yàlla defal vraiment ñun amuñu seen fay yenn équipe bu Feeling ndakaar ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax tey ñëw jublu ci liggéey bi nag euh, Jumbori euh, datub la 30 bi nga xamante ni euh, doon nañu dégg ñu di ko romandaat ci ci wóorumu réew mi ci biir Sénégal maanaam Euh, kenn xamul woon nag date bi lan la woon ak lan la patriote yi doon waaj ak lan la ñuy jàpp lan lañ ci nar waaye démb si jotaay wu yaatu yi nga xamante ni amoon nañ ko ak euh, taskatu xabaar yi gis nañu décision ba nga xamante ni jël nañ ko ci date le 30 boobu ñoo ngi ko wootee nag ca tere ak pes bu parcelle mhm. ah ngir euh, def cérémonie d'investiture ci président Ousmane Sonko ñoom datub la 30 bi jumboor yi mel na ni la nit ñi doon laaj lan la ak lu xew mel na ni jàpp nañ date ba pour investir ki nga moom moo di euh, Ousmane Sonko mhm. ci élection yi 2024 mhm. waaw yi euh, maa ngi lay euh, wax ne di jaalewaale kii jaañnaar raxam bi uh-huh. di nuyuwaale pël gp borom keppaaru Serigne Babacar si di ko xam ni saa buñ commencé mu commencé diñ seetaan. macha allah waaw mais gis nga Ali mbirum usmaan Sonko. Mm-hmm. dafa nekk mbir mu xam ni xel ay fu mu toll nii borom xel dong moo si mën a xam dara. Mm-hmm. mais képp ku amatul xel xamoo ci dara. parce que le fait que ngay toog ñuy toog di wax ni Ousmane Sonko dañ ko war a kii la trente xam dañuy def nii dañ koy installé dañuy def nangam ak nangam xoola nit ñii di gëm ñii di weddi. léegi lan moo indi lan moo indi ñii di gëm ñii di weddi hmm. lan moo ko indi parce que tey euh, ay nit ñoo taxaw mel ni ñoom ñooy justice bu ñu waxee mu am bu ñu waxee bu ñu waxee du am léegi nit ñi dem ba bàyyi justice gëm ñooñu parce que tey bu dee justice nee na Ousmane Sonko am na dëgg nañ ko dox nañ ko jox dëggam hmm. fu ñu ko àttee ñu ne ko am na dëggam ba pare ay nit taxaw Euh, euh, mënul fexe ba jot dëgg boobu léegi ñun si benn affaire lañ nekk diggante ku ko xam ne dañ ko jox dëgg ak ñu ko war a jox dëgg aaye ko ko léegi nan la nit ku xam ni yow doo justice a justice àtte nit nga ñëw aaye ko léegi kooku ban doole la àndal ba mën a aaye ban doole nga àndal ba mën a aaye lu justice dogal nga aaye ko léegi nga aaye ko ci ban anam aussi si aaya yi anam yooyu ak niñ koy déroulé dangay dugg xam nga tey aaya bi. Mhm. dañ ne diw dañ ko aaya nangam. aaya wuñ dañ leen a téye dugg. dañ xam nga dañuy ñëw bëgg dugg eh, fi ñuy fi ñuy bindoo wala ñu bëgg a dugg eh, dugal seeni kayit wala ñu bëgg a dugg ñëw jël seen kayitu parrainage ñu ne leen doo fi dugg doo fi dugg ak doo doo doo dañ ak aaye du benn. doo fi dugg ak doo ko fi nekkee nekkul benn ñun nag dañoo dem jël doo ko doo fi dugg jaawale ko ak ak ak ak ak doo loolu nga bëgg du fi amee bokkul léegi xam nga doo fi dugg ji doo fi dugg ji moo bëri fu kële Habib Daffé buy dugg dàq ko ne ko doo fi dugg maître kële door li buy dugg ñu ne ko doo fi dugg dàq ko hmm. léegi doo fi dugg ak ak doo fi li nga bëgg du fi amee est-ce que benn la du benn léegi ñun ñi nga xam ne xam nañ ni kii dugg tey jii xoola ma wax la benn affaire su ma xotti woon sa kayit yëpp ne la nekkatoo sénégalais est-ce que dafa tax nekkoo nekkoo sénégalais. da ngay nekk sénégalais. Mm-hmm. lan moo tax ngay nekk sénégalais parce que kayit bu mag bi kenn mënu ko xotti parce que ni nit di juddoo ñu defal ko certificat de ñu defal ko nit nit du juddoo ñu xam ne kii kat defal nañ ko. kayitu juddu nit dee ñu defal ko certificat de décès dem ci tribunal bu mag bi dindi fa turam def ko ci ñu dee ñi mën a compter nit ñi loolu mo loolu mooy loolu la nit jotewut parce que fi Ousmane Sonko àgg ñu bind ko ni mun na nekk ñi koy aaye jotewuñu foofu coow li ci kaw rek la nekk nekkul ci biir parce que coow li coowal politique la dañ doon dam yi rek ñee ñenn ñi am nañ doole ñoo yore pouvoir mais Ablaye waat daf ko daan def Macky Sall Macky Sall da daan buubu ñu kar ko fii mu dem ñu kar ko fee mais am na foo xam ne bu ñu fa àggee ci cëppaandaw gi Ablaye Wade munu ko teree bokk yaa ngi dégg bokk na loolu ñun tamit loolu lañu ñu jàpp ni Ousmane Sonko am na foo xam ne bu fa àggee tamit ñii munuñu ko teree bokk day bokk ba pare tey dafa am lu ñaaw lu ñuy def loo xam ne bu ëllëgee est-ce que bàyyi nañ ci xel mooy nit am dëggam ñu ne ko ñu mel mu mel ni amul dëgg léegi bu ëllëgee ku am dëgg ñu xa bu ku am dëgg ñu xañ la dëgg est-ce que ñi ñi ko fekkee woon di seetaan est-ce que dinañ mën a seetaan loolu waxa rek li ñuy yàq du démocratie kese dañuy continuer di yàq jikko yi Ousmane Sonko keneen ak keneen ak keneen ku war a bokk dañ laa war a bàyyi nga bokk la trente ñoom nañu installé mais bu ñuy installé fu mu toll ñoom dañoo fexe ba dañoo fexe ba Pastef niñ daan waxee ñu changé ko gisoo communication Pastef dafa commencé waat. d'accord que dañoo communique ba Pastef am. ñu communiquer ba ba ba ba ba njiitu Pastef am. ñu communiquer ba secrétaire général am ñu communique ba trésorier am lépp am léegi biñ nee tas nañ parti bi léegi ban communication ngay xaar nii xamatoo ko sax. effectivement waxal rek parce que le fait que ñu tas parti bi léegi parti bi day commencer waat communication. léegi communication boobu muy communiqué waat nit ñi fu mu nii ñëpp seen bopp dafa tëju ci ñiir bu la 30 jotee lan nañ lan lañ ñuy wax bu 30 bu la 30 jotee ban coalition la ñuy demee te loolu li ñi ko indi ñi ko indi est-ce que bu ñu leen defoon noonu encore ñoom dinañ jot réew duñ jot de. en tout cas man lu may wax te wax ko daal mooy am na loo xam ne dafa jekkul jaaduwul wax dëgg yàlla. nit ki bu fekkente ni def da nga ne lii la def Ousmane Sonko lii la def. Mhm. da nga koy xoola tey jii Ousmane Sonko bu defoon dara bu defee dara. Mhm. ñii ko jàpp yëpp dañ koy bàyyi. dëgg la am na wala amul. mais ñàkk def dara ji moo tax nit ñi topp ci di daw boobu ba léegi lii nañ ko bàyyi ci réew mi ñu war a installé wu ñu installé leen ñu war a dem ci élection yi ñu xàmmee leen dem ni diw mi ba pare nëgëni si waroon nañoo xam ñii dem bu yàgg. Mhm. pour affaire bi neex. mais léegi gis nga ko affaire bi neexul communication bi changé na booy déglu lii déglu lee am ñuy mën a sant am ñuy wër si plateau yi mais Ali loolu daal vraiment. xam nga ah. am ah, jaaxle naa si quoi man. dama si jaaxle daal. d'accord waaw parce que buñ toogee fii la 30 fu mu nii ñun dañoo waroon ni la 30 lii la ñuy wax mais la 30 bu jotee xamoo dara lu ñuy wax fu mu toll nii toog ba la 30 doog a xam ñoom lan la ñu indi lan la ñuy wax. ñun ñu toppaat si di wax lii lañ no vraiment affaire yi dafa dafa dafa metti de metti na si trop eh, waaw léegi bu njëkk ba dañ doon wax dafa metti ci Sonko uh-huh. mais metteetul si Sonko ñun ñi dëkke réew mi la metti ba pare nit ki boo mosaana toog ni kii day yee fitna kooku dem dugg kaso ba pare fitna bi gën a rëy ci réew xam nga ban la nit ki am ay àqam ak ay yelleefam ñu di ko ko xañ lu uh-huh. dëgg loolu fit loolu moo raw fitna quoi wax dëgg yàlla ba pare yàlla moom moo moom nguur ku mu ko jox nga ñam pare nga mais demal ba pare sénégalais yi ñoo yeewu xi nga buñ toll ni ñi fi njëkkoon toog nekk fii affaire bi neexul ñun ñii ñëpp ñu ngi nii boole nañ xiif mar rafle jaaxle njàqare réew mi kenn desatu fi ñëpp dem bàyyi leen ak réew mi ñoom dong nekk fi di lagar-lagari seeni doom new fi yaakaaruma ni ñoom mun nañ fee waxaat ba nit ñi gëm leen te nit ñi ki ñu gëm nañ ko bàyyee nañ leen bàyyee kooku ñu gëm ko rek mhm.